leen dem mitaa mu ñëw nga tegal ko sees maa ngi fa toog ñu ne déeta waaye nañ ko jox ama sëll bu ndaw ñu jox ko ko coow lu bëri loolu nga dóor ko ba gaayi yi àtte ñu ne déeta waay ñu ne nañ ko jox ka nga xamante mooy booy ñaa fis de ka nga xam mooy dégol baayam indi ko ngemb ko ñëpp indi ko yow àndoog sama àndoog sa rak àndoog kenn koo xamante ne mën nañ ne kii loola sant nga dóor ko dóor yi métti ipirkul ko jàpp ko daan ko saxañal ko moodu suuf si ngay diwoo moom a ñor suuf si foo ko jëlee. waaw maa ngi lay nuyu bu baax ci li nga reelal leeral yi nga def loolu. maa ngi lay fay. di nuyu assistance bi ñuy jàppale ci combat bi yëpp Chamlax combat bi dañ ko jëloon préparé ko physiquement moralement mentalement Chamlax. booy Niang ma ñëw gën ko nekk ci làmb ji bu ñu waxantee dëgg. Mhm. xam nga mhm. parce que mu ngi ñëw vingt dix huit heures ci làmb ji. ma ñëw treize heures. Mhm. man gis naa sa benn a avant ñuy sëfle nga naan ko de heure bi jot na na ñëw. man leen rek laay réccu mooy li ma tere julli timis ak gee. Hmm. loolu dama koy métti lu sam la parce que bi di seet jot laa dugg ci kii bi julli xam nga ngemb waat xam nga ñaan ci yàlla di wax nag Boy Niang ki ko daan champion la ku mënuma ku nekk mën naa ko daan xam nga di ko wax yàlla mu ngi ànd ak muñ kat yi laa xam maa saabiriin xam nga na muñu xam ni ki ko daan champion la xam nga benn yoon mu ñëw ni daan ñëwee sama la Pikine dama leen xam mooy li ma wax barki démb bu laajoon ñi ko jiitu avant moom wala mu laaj ñeneen comme ñan Ama Balde bi muy nekk ci digg ndëndam laa bi nekk booy muy bëre laa ko daan seet buntu kër. waaw waaw Falaay Balde yàlla ko yàlla yërëm moo ko jàpp ci loxo yóbbu. xam nga xale yi dama leen xam. parce que lépp ci sariya laa koy teg. ñoom ñëpp ci sariya la ñuy tegu. mais man li ma jaaxal ni nga. xale yëpp dañuy rek la tegu ci sariya. <laughs> ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp ko ñebe kenn ñoom ñëpp wut yow lamb ngay def wala internat nga ubbi internat laa ubbi amaam nee na sax dina ñëw pour bokk ci internat bi booy ñaari dina ñëw bokk ci et ku ma daan di nga dugg ci. ñoom bu ñu ñëwee lan mooy seen rôle ci internat bi dañu war a xam seen lan mooy seen rôle ci internat bi bu ñu ñëwee. dañu war a xam seen diine. waaw xam ni làmb ah, day jeex mais diine du jeex. Mm. waaw Chablox dañu war a xam ni ñuy jullee. fal ama bi ñuy bëree boo gisee ma rokos ko rokos met yooyu. ñëwal nii jàllal nii jàllal nii waaw jàllal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal da ngaa tardé damaa bëgg ñëpp xam da ngaa tardé ñëwal ñëwal ñëwal. tàcc leen ko tardé tardé tardé tardé tardé tardé tardé aja néew gi yëpp jaru ko ñëwal toog rek waaxu waaxu amaama la amaama la bala ngaa toog amaama la bala ngaa toog nga ko lan Père Sagne Senghor jërëjëf Thiam ak Sarr la Thiam ak Sarr Thiam ak Sarr la kan la kan la lu mu def loolu dafa baax non li nga def nii euh. sama xaataangoor dañ ci bëgg a dugg <laughs> mais teel a la ñibbi na nga teel a ñibbi. compétence compétence yoroo almet. Ah. pour lan ah, na tàkk. na <laughs> na may boy. mais namu naa la. mbaa yaa ci jàmm ça va bien. sañ seen nga. sañ seeti nga. sañ seeti nga. sañ seeti nga. maa ngi de. mais ñaari mbule yi ngeen dellu da ngeen ko waroon jaxase. dañ koo ja li ngeen. soo yëngu si yaa ngi tardé ñëw di ñu wax li ñuy def yow teeloo ñëw di ñu wax li ñuy def. <laughs> ku yaa ngi tardé ba pare ñu ngi wax li ñuy def man wax naa si noir noir. waaw joo wa nga ah, wa nga dégg de dañ ko waroon a jaxase de nii moom wóorul. yéen ngeen bàyyi grand bi teg meew yéen ngeen war ko teg xale bu yow daal neex na voilà. léegi moo tax nga yaru. en tout cas daal neex na. du yow seen morom la non non seen morom la dañoo ñëw fekk muy meew. waaw léegi wuy leen léegi bu doon tëj mën naa jooy ñëw fekk muy meew. waaw waaw dégg nga kay yéen yéen. mais kan moo ko meewloo. moom dañoo ñëw fekk muy meew. oui ma booy booy yow man sama meew ngay tudd. non non man tudd meew mi ngay meew dama ne booy lu ñu lay seetaan ngay meew. dañoo ñëw fekk eh, mu meew de. waaw saa ngay meew ah. <laughs> dañ ko fekk muy meew rek. dañ ko fekk muy meew de. dañ ko fekk mu toog di meew barke yàlla dañ ko fekk muy meew. c'est sûr que grand da ñu daa ngay meew. ñuul. meew meew meew meew. isa ba day. xoolal xoolal xoolal kii Pierre mi ngi mel ni kuy bëgg a daw mooy am mbàkk ci am position yiy jël Pierre pour tax. kuy meew na meew meew mi ah <laughs> non non non man maa meewatul meew mi man maa meewatul meew mi. dañ laa tënk. dañ ngay jug. garaaw garaaw ayca léegi. léegi Modou ci yow lañ nekkoon parce que ah, euh, sama jàmbaar ji moom moo doon dugg si ci yow lañ nekkoon Modou. Euh, léegi li ma bëgg Modou mooy euh, dama am problème problème bi ma am mooy yow da ngaa waa waa waa waa Pikine mais man li ma ci jaaxal yow am nga benn waay boo xam ne yow saa bu ngeen bëree mu daan la. léegi yow jàmbaar ci gi ngay wane. jopp waa Pikine yi di daan rek. yow mënoo dem laaj kooku jéem fay fayu au moins ndax kooku heure bu ngeen daje mu daan la mooy baa Gaye. waaw xam nga làmb am réalité sama la wax. am guuxal ci meew mi eh, meew mi sa meew. Ah. waaw naanaal. mooy li ma wax nii. la ilaha illallah xam nga à li yaa meew lii. Modou Lo xanaa la gën a bañ mooy muy wax nga koy nga koy dagg nii muy wax nga koy dagg a bañ ah Modou ah, waaw la xanaa nga jóge ci combat bi jeex <laughs> daa feebaroon <laughs> daa xawoon a tawat de ah Modou loolu daal jar naa la wax am naa lu su ko yamale ci man non mooy yow su mbër mais <laughs> mer xam nga dañu ñëw pour waxtaan ci làmbu. waaw bi de wax bu respect taxawee nañu. Modou de ngaam rek la dese. xam nga wuyu na ma waaw léegi tontu sama question. wër na yàlla meew mi dafa neex. aja Modou waaw léegi affaire meew mi laa bëgg ngeen. bàyyi bàyyi ko waaw daa bàyyi ko léegi. aja dugal làmb la. yow yow may ma rek ma ñëw. soppe laa bëggoon wax li nga meew mais garaaw. comme mi ngi tëngeej mais garaaw après ma wax. ko nag ñu ngi may dépassé. non non après ma vocal ko kii noir fumier kii la day génn day. waaw gis bëccëg. wuyu leen ma léegi wuyu leen ma voilà. yéen a yàq nag suñu suñu meew meeg suñuy balaa. waaw waaw ayca ayca waaw léegi. léegi Modou. Modou jéggalal ñii rek. xam nga ñii ay comédien lañ da nga leen comprendre. waaw boo toogee comédien yi nii lay demee. mais tontu ma ci question bu am solo bi ma la posé. waaw question di wax. waaw léegi noppi nañ noppi nañ mooy li may wax à chaque fois làmb dafa am réalité. waaw xam nga tey da ngay dugg ci benn écrit daan fa ñëpp. waaw xam nga loolu dara làmb la sam la wax làmb mooy def loolu. kon na xam nga làmb mooy def loolu. xam nga mais du question dama mën waa Pikine wala dañu kii làmb la woon rek. waaw d'accord làmb moo ñu boole yàlla def ma am fa ndam yu baree bari yu tegaloo. loolu kese la xam nga ñoom bu ñu amaatee ndam yàlla na leen. yàlla waaw non foofu génn naa fa yaa ngi da wax ji de. ki nga xam ne bu ngeen dajee rek mu daan la muy Balla Gaye ma ne la doo ñëw foofu delluwaat fa daan ko waaw xam nga tey booy nekk ci mbir di ci avancé da ngay gën a bëgg hmm. nga tey anière di jël kooku ki wax nii ni wérul dafay Modou gi daw de Balla yow Modou yow kon ban suma kan jël nag du tey Balla ma nga wax kookoo daan Kona hmm. daan Mbaye Diouf hmm. daan Issa Pouye yóbbu Tyson retraite yóbbu Moustapha Gueye retraite Yékini bi fi nekkoon ñëw taxal gars yi naan Yékini Yékini l'enfant de Joal mu jàpp ko teg ko ci suuf jàpp ko moom mi rokos ko deux fois da nga koy jël wala doo jël bu ñu nekkee ci plateau dañuy waane respect moom da ngay jël waan la ngay wala jël mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais waaw mais Père Thierno moom fils waaw d' accord Père Thierno Balla c'est mon fils waaw Père ñu normal ñu wax waaw d' accord merci Père normal ñu wax waaw d' accord naan ndox dégg naanu moom ndox te meew mi ne fi ah, baax na ca ah. demal parce que li mu wax ni dafa am saar bu muy fàttali su ma danaaw asfala saafiliin mhm. xam nga nit looy wax billahi li ngeen def la mënuloo gën a bañ. billahi li ah, la mënuloo gën a eh, bañ ci àddunaam li ngeen koy def. maa ngi nuyu Mame Matar Gueye di ko ñaanal gudd fan. jam ra ak xéwlu ak suuta yàgg na waa loo wax ci aaya bi nga ne. xam nga war a dem naaw. asfala saafiliin ñuy waxtaan. non je te jure maa la ñaan léegi xam nga lan la damay couper seen micro yi léegi. non non ah, bu leen yàqal kii mi ngi wax du sérieux. acca dama Mm-hmm. ñoom dama leen a fonk parce que ay mm-hmm. comédien la ñu xam nga di mm-hmm. def lu am solo man su ma toogee su nekk ñoom la seetaan sama la wax moo tax booku waruma ñëw fii ñu may minimiser di ku ne di wax xam parce que yéen ñëpp ku ma ci jàpp su ma naan ah, am na loolu am na waaw loolu dëgg la yow su ma père damay tëj sa micro de mii daaw jug sama kër defal naa ko lu ne defal naa ko mais waruma ñëw fii une heure du matin quatre heures du matin bu ne yee na ma. loolu tamit sutura la. non parce que moo ne kooku dafa maa rokk sax yooyu. la fay. bu trois cent cinquante mille da ko xeeb mënu ko fay. Ah, boo ko mënoon fay doo ma yee quatre heures du matin xam nga am na yoo xam ne. bu ma la yaa ngi wër rek wax ji. da ngay jël si wala doo jël si Balla. xam nga mooy li ma wax nii sànq. xam nga à chaque fois mooy li may wax. moom mu ngi ci côté am di entraîner xam nga mënu ma tourner daan ko ñu dama feebar xam nga te moom wérul xam nga ku may daan day nekk ca xale yi laay tur. kan la waxee da ngaa ragal baal loolu la rek waa ji loolu la waxante dëgg. moo tax fii daal ñun xoolal. waa léegi bëriwuma ak moom Sénégal yëpp nee nañ Modou. yow naa seen président bi naan wax lii bu yàgg nga may ñu. deux cent millions sa Modou bëriwul. bëriwuma. kii mooy président écurie gi neen deux cent millions sa Modou bëriwul moom kay wax na ko moom muy leer naa ñu. wallaahi ndeysaan yow fan nga nekkoon yow. man. waaw. Eh, maman. yoon wi yow xam nga li ma la wax yoon wi xat ah. barki yàlla yoon yoon nga nekkoon. billaah yoon xam nga fa ma jógee nag du fii. waa loolu am na. waaw looloo tax xamoon nga ne vingt et une heures lañ war a war a démarrer. yow xamoon na lu mu guddi guddi ak fu mu mhm. tey ñëw rek. Mhm. ah ñëw na. ñëw nga ñëw rek sa xarit. waaw maa ak sama xarit. Mhm. barki yàlla. Euh, mami Pata. mami. actrice bu bu mag bi. Euh, bi tey foog après ñu dugal ko. ndax xam nga tey sama single bi tey la génn. Eh, indi nga single bi. indi naa single bi. jox nga ko Charles. Euh, foog ba jox ko Charles mu gën a leer ci moom. parce que dafa naa kii nee na boobu liirul. boobu leerul mais foog dem fa. waaw après nga dem fa moom. waaw après euh, nga xamante ne waaw bi moom de fii lañ koy fii lañ koy. lancé fii lañ koy njëkk a joué au trahison njëkk a joué acca léegi nag ñu fas yéene samedi bu jot ñu def li nga xam ne moom moo di plateau bu mel nii. waaw waaw waaw waaw xam nga. Euh, coow li bari na lool waaye nag Walf dafa def innovation boo xam ne gis nga bi samedi xaw ma kuy defati programme mais bu yow mu xool mm. ndax programme bii c'est que man li ma ci gën a yéem mooy ni ñu ko programme bi maanaam samedi bu jot ak góom maanaam fii dafa mel ni restaurant samedi bu jot ak plat bi. ñu fi ne tey maafe lañ indi nii bii di ñëw ay damaara lañ indi. suppu kànja ñu indi ay mbaxal. Ah. ay suppu kànja la ñu teg meew. waaw léeg la ñu teg bisaab. ñun lu ñu neex ah. teg. te li ma gën a neex ci kii meew day sol couleur meew bi. nga dëgg di balaa la laal de. balaa la laal émission bi bu àggee ragal du ko balaa la laal. vraiment alaaji euh, émission boo xam ni nee naa la samedi bu jot fii lay amee. ku ne mën à partir de mm-hmm. kon bu kenn tardé. Mm-hmm. di seetaan. Mm-hmm. Euh, tey daal dara du yëngu te dama naan dara du yëngu lépp yëngu même foor na de bi tey. wax na tey wax na de. est-ce que aw aw balaa jaxase. am na loo ñu def am na loo ñu def ah. moo sax. maa ngi bëggoon yow yokk ko sa baat yéen lan moo tax ma def ah. loolu. Ah. Ah, am na lu ma ci dugal dama leen <laughs> bëgg a toppee ngeen ngeen gën a sawar. bon léegi man xam laa bëgg. xam nga laa bëgg comme nuyoo nga ba pare. li ma bëgg moom mooy parce que.